Adja Oulimata Dioum moom responsable Benno Bokk Yaakaar bi moo amaloon am dajee yëkkati fa ay kàddoom jëmale ko ci ñiimu mu àndal di leen xamal ni moom ak ñoom financement yi ba ilaa yow mi diin ndax kat femme au foyer dafa wara a mën a jeex ci mim réew. politique ñàkk politique ñun dañ ñu mooñaale ak développement la nga xam ne moom la ñu njëkk a def ci promotion de la femme mooy fexe ba jigéen ñi même ku nekk au fin fond du Sénégal. ñu fexe nga xam ne liggéey mooy teral as gor tàllal loxo tous les jours du lu gën loolu la ñu njëkk jàngal jigéen ñi xam na it femme au foyer dafa war a jeex. ni ngi noonu tamit Adja Oulimata jum xamal na leen ne liggéey bii ñuy liggéey pour mu mën a jàll il faut ñu jàppale président Macky Sall mu am ndam. parce que ku ne xam na ne benn mandat rek nit munu cee liggéeyum réew te li mu semb ak li mu yéene. wallaahi buñ ko ko joxul c'est le Sénégal qui perd te loolu war nañ ko xalaat bu baax a baax a baax baax Sénégal ku fi ñëwaat da ngay recommencer à zéro wutal sa bopp d'abord parce que ñun africain xëy na yàllaa ñu nattoo loolu kon ki nga xam ne sémb na te bëgg na te gis nañu mu liggéey liggéey bu am solo nañ leen ko may mu àggale liggéey boobu Sénégal rek moo ciy gañe kon ñu ngi leen di ñaan au soir du 24 février ñu voteel suñu mbër le président Macky